ay vote moo koy maye te vote yi xale yi la Sénégal la euh, te man lépp lu ma tax a jóg rek mooy euh, Sénégal euh, sama réew ak samay fans ñi nga xam ne dañ ma bëgg donc tey buñ ma delloowaatee njukkal jox ma lii du ma def lu dul kontaan ci gën a liggéeyaat rek parce que li ngeen wax léegi rek liggéey moo wóor te liggéey bu set bu rafet tamit nit yi dañ koy enjoy dañ koy bëgg

dañuy musique bu neex ñep enjoy donc merci encore euh, di remercier presse bi fa nekkon di remercier kilifa ya fa euh di len jaajeufal bu baax a baax a vraiment xam nga lan lay wax merci beaucoup <laughs> jërëjëf merci mais cette année. Uh-huh. euh nga enchaîner ay euh, ay sorties yu toppal. c'est-à-dire de nouveaux clips dans un, un style différent, beaucoup plus engagé, ah. euh, très moderne, mm-hmm. comme si on suivait des films de cinéma. Donc, euh, tu as bien travaillé cette année. Merci beaucoup, Donc, Prince. Tu sais les meilleurs, quoi. Waouh, waouh, je sais que depuis 8 mois, euh, style musique, je sais que je quoi. Euh, dafa dafa gis naa ne ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi ci et puis bëgg nañ ko Sénégal bi euh, bi euh, wuyuma génnee gars yi dañ ko enjoy mu nekk lu bees donc boobu ba tey boo xoolee loolu la ñuy continuer di def nag yeneen style yu bees yoo xamante ni voilà voilà léegi nag li may wax rek mooy am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi leen di pareel tournée après koor gi incha allah ak beneen album boo xam ne surprise la nag euh, mais du ma def nag avant may def dara du remercier ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci album bi liggéey ak ñoom muy euh, Akathie euh, Baxaaw ñoom di DJ Awadi ak Ibrahima Ndour ak Jolof Bond ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci maa ngi leen di remercier di leen joxaat vraiment trophée voilà di leen wax après koor gi nañu xaar yeneen surprise euh, sa waa dëkk ràññee ko ne la am li yaa ko moom euh, kontaan nañ ci yow du def lu dul ci daw comme jox ma ko te il faut ñu daje euh, comme ça lii ma mën ko jot ñëpp gis ko merci. Mm-hmm. parce que liggéey bi na

day set ba nga xamné kuko ku ko dégg fe depuis 2000 wala 99 batay tey ah, macha allah Viviane euh, defe naa am expérience ci musique ba nga xamante lepp lépp lu may def rek macha allah dinaa ko ségg ségat ko xol ko donc man lepp lu may liggéey pour djël ko jox ko fans yi day nek lo xamné lu bax lay do donc man euh, du du ma toog sax bay xalat ndax dina jot li wala au contraire mako ma ko jotul dinaa xam ne li rafet na Euh, Sénégal enjoy nañ ko bëgg nañ ko euh, ñi ko war a jot ñu jot ko parce que musique ñun ñëpp ko bokk tey da ngay gis xale bi gën a ndaw génne it boo xamante ni macha allah ñëpp koy bëgg donc musique bi ñëpp ci xaj ñëpp ci ñëpp ko moom ñun ñëpp ko bokk tey ki war a jot rek dafay jot donc euh, ma jot ou pas liggéey bu rafet rek man pour man moom am solo. voilà ñu gis ne euh, def nga léegi ak yu bëri def nga featuring ak yu bëri euh, ñuy xaar benn featuring boo xamante ne nit ñi am nañ envie parce que xam euh, koo xam Viviane xam ne ñu ko États-Unis mais aussi gis ne dafa yor benn style bu ñu doon Beyoncé est-ce que Sénégalais mën nañu xaar nga def benn featuring ak yoo xamante ne Beyoncé boo xamante ne ah ñu ngi liggéey de yàlla baax na waaw ñu ngi liggéey pourquoi pas ah loolu de man moom waxuma sa Beyoncé mais xale bi gën a ndaw sax euh, muy def lu neex damay bëgg a way ak moom parce que musique loolu la mais euh, yàlla baax na ñu ngi liggéey daal waaw ah, ñu nañ ñaan affaire yi gën a yokk gën a dox puis ñuy gën a bëggal rek euh, ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg sa doom Philippe bi nga xamante euh, ce que tey bi nga nekk da nga euh, man nag euh, sama doom moom li nga xamante ni moom la bëgg dinaa ko bàyyi mu def ko parce que lenn moom xam naa ko moom moom mooy jàng bi d'abord na jàng ba pare mais en même temps li nga xam ne bëgg na ko dinaa ko bàyyi mu def ko parce que nit ki euh, mën nañ la forcer tey nga dem def beneen métier euh, doo ko fil mais li nga xam ne moom mooy musique bëgg na ko euh, te bu ko bëggee rek dañ koy bàyyi mu def ko mu ngi jàng nag pareegul mais des fois mu génn toogaat mais xam naa ne incha allah dina def album te dina dina ci nekk daal incha allah. ndaw mbooloo mu teela sabmaan soxna jaara yàbb na géej mbambulaan mu naan walwaleey ku bëggug ndawal taalil dus bi yàgg na baawaan ab liggéey Mamor Jaara yéene jaay Bamba yéene mu ëpp pay jëf moo waral moom xaadime xaadimi rasuulillaahi dama ko woo xam nga ni ku ne rek ca la ngay yëngu ah, boo ko bëggee def boo ko wooyee rek da lay gën a yombalal mbir mi donc ma ko wooyee mu nekk euh, sunu nijaay sunu papa sunu lépp euh, di ndaanaan nag boo xamante ni kenn du ko werante macha allah euh, moom foo ko déggee rek mu mu yuuxu wala mu way sa yaram day daw ndax ku tedd ki moo ko ñor sallallahu euh, alayhi bi ma ko wooyee nag ci Bamba euh, dafa ñëw jox ma ko moom la woy léegi soxna jaare yaa bën géej mbambu laan mu ku mam jaa ma naan ko ndax dinaa ko mën a woy ma waay waay waay dinaa ko mën mu ne ma wéyal mais ba ma ko jollee macha allah mu neex ba dee ma ko koy santee di ko ko gërëmee di ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi may ko wér yokk kàttan beeg mën-mën bi jërëjëf. liñ ciy euh, liñ ciy wax mooy euh, yàlla na ko jég ah euh, duñ na guléet nag du chance it mérite la. parce que bu ñu nee Viviane euh, dañ ko joxaat raaye dañu naan alhamdulilahi rabil alamina euh, parce que moom yii yëpp du ko xaar li ko ñor mooy di bégal sénégalais yi hmm, kon buñ ko joxee raaye moom da ciy bég parce que dina xam ni sénégalais yi delloo nañ ko njukkal waaye nag raaye bi li ko indi mooy génne lu dul xew yi moom ku dëkk di ko def dinga nga am raaye ndax moom moo fi nekk di génne loo xam ne do xew yi parce que xam ngeen ne début confinement bi metti woon na ci 2020 bi Viviane ànd ceeg yéen ba 2021 kon li ñuy ñaan mooy ku mën a am raaye ci euh, confinement ak ay couvre-feu ak pandémie yaakaar naa bu lépp jeexee ñu jox la àddina yàlla na ko jig joxaat nañ ko mbokki artisam yëpp di ci remercier nag sénégalais yi parce que nee naa leen du Viviane

parce que par exemple gis nañu tey yaa ngi nekk ci ginnaaw Viviane. wala yaa ngi nekk ci côté Viviane. ngeen di ànd def def benn def tool lan ngay wax ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko liggéey ba egg si fii da ngeen commencé métti na a ngi xaar ay trophée yu mel nii wala ñu ko parce que ne Viviane ay trophée yu bëri a wax seet si loolu bon tout déjà tout d'abord ñu ngi leen di féliciter ñi nga xamante ne Yorgo organisé événement bi euh, di féliciter aussi Viviane ci euh, franchement trophée bi doon meilleure artiste féminine de l'année je pense euh, yàlla na doon njiglaayam donc mu nekk trophée boo xamante je pense que pour fans de Viviane yëpp la pour waa Jolof Band la pour Sénégal yëpp la Viviane dafa nekk nit bi nga xamante ne liggéey ak moom dafa macha allah dafa dafa dafa neex. parce que euh, buy liggéey day dem demee toujours ak xol da ci dem ak sañ-sañ da ci dem ak fit ba pare da ci dem ak àq tamit ba mu jeex tàkk donc euh, moom laa moom laa koy wax chaque fois rek nee naa ko vie mun a wax mën a ko euh, lépp loo am rek sant ko yàlla parce que day nekk loo xamante ne day multiplier parce que buy liggéey ak doomu aadama dalay mettre à l'aise de telle sorte que yow tu te dis dans ta que ne est-ce que kii nit la nit kooku yàlla dafa wax ne moom nit ku booy liggéey ak nit seen àndee rek yalla mën na def que mu mu réussir Viviane dafa nekk nit bi nga xamantene ne depuis biñu ñu juddoo ba léegi wala depuis bi musique commencé wala biñu xamé ba léegi ñu ngi koy déglu comme la kay wax nee naa ko yow moom dañ lay ñaanal yàlla rek nga yàgg fi lool lool lool parce que quand même euh, dafa jafe si jigéen nga nekk jigéen surtout artiste euh, maintenir cap bi ba léegi tey mënoon nañ ne Viviane au euh, school wala new school doo ko dégg doo dégg Youssou au school wala new school la doo ko dégg donc lu leen koy permettre lu leen koy may moom mooy liggéey boo xamante ne dafa dafa dafay ànd ak génération bu nekk Viviane day dafa am bu mu laa koy wax nee ko yow public de sept sept ans la day commencé ba 77 ans maanaam yow ñëpp dañ lay déglu et loolu c'est pas donné à n'importe qui di koy ñaanal yàlla nag li nga xamante ne moom mooy Royal Music bu ñu ko jox yàlla na doon njiglaayam et ñu continuer je pense que ne incha allahu rabbi man confiance bi moo jox confiance la boo xamante ne jox na ko ñeneen ak ñeneen ñu muy liggéeyal man certes on travaille beaucoup ci yenn affaires yi maa ngi koy ñaanal yàlla lii yàlla doon njëkklaayam te di wax ne que ne ah bu dee bu dee bu dee bu dee liggéey de mooy tax ñu koy jox raaya xam naa doo leen gis ci ñu koy jox raaya ndax liggéey na loo xamante ne ne fu mu ne nii fii ak 5 ans bu ko neexee mën na bañ a génnee album te bu mu ci génnee bu ne di ngeen ne ndax lii dëggantaan la dama jàpp ne fii ak 5 ans moom meilleur artiste ren moom mu ngeen koy jox wala fii ak 20 ans sa bu leen neexee.